da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamaaleykum lu xew TV ñoo leen di nuyu di nuyu ñëpp di kontaan ci Serigne Madior maajoor ak joor série bu neex la dëgg yàlla man maajoor moom joor laa ko yéene yéene joor moom yéene ma ko lu dul maajoor ah ñoom ñoo war a ànd nag c'est normal ñoom ñoo war a ànd maajoor nag na ci joor wër na fay na yàq na liggéeyam yëpp ngir joor te yéenewu ma ko may laa ko yéene maajoor lay àndal kër ga kër ga neex mu mën a lijjanti kër ga nag ndax buñ ko buñ ko fekk ci kër ga bu demee si kër ga daal dina nekk en daal mun naa si parce que yaay maajoor bàjjanam la yaay maajoor bàjjanu joor la ndax nijaayi maajoor moo jur joor loolu tax joor nuroo ak yaayi maajoor loolu tax joor nuroog yaay maajoor yaay maajoor bàjjani joor la dina génnaat ci film bi bàjjani joor la moo ko tay joor a ñoo bokk ndey ak baay ni yaay maajoor moo jur joor kon moom série bu neex la ci kanam moom dina gën a neex asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa Lu Xew TV ah. di leen ñaanal jàmm te di ci sàkku dama ñëwoon di wax pour ci série Madior ak Dior série bi moom niñ koy gisee macha allah nice na trop mais bu ñu soñoon nag ñi wax ci kii de yaayu maajoor yaayu maajoor parce que ñoom lu ñu kii lu ñu wax foofu mooy yaayu maajoor ak papay joor ay frère sœur lañu te léegi boobu ba tey papay joor moo ngi dam ñëwul waxuñ ci loolu ba tey salut salut nam naa leen lu bees sa wàllu xew TV yéen si jàmm déwéniti leen baal leen ma àq yal nañu yàlla boole ba joor bu leen gisee mu nangul maa joor c'est dafay marié ak moom mais peut-être que te justifié tam dafa bëgg maa ba tey ki ko bëgg bu la nee damay xam dangay bàyyi lépp li nga jàppoon mais pour mu tëb tëb ak maa joor loolu du mën a nekk il faut mu dem fee soit vérité bi da koy yëg jour mariage am ak Maïssa wala mu marié ak Maïssa seen ñuy dem noonu suñu doog a yëg vérité bi moom du moom lay njëkk a marié non non Maïssa lay njëkk mu njëkk a préparé ak Maïssa comme ni dem ba si digg bi mooy loolu ñu xam vérité bi macha allah maman Banel moom wane na carrément moo juru Dior ndax xolof da koy yëg. naatu mu ngi gént ne xamul lu gént gi di tekk ñu ngi koy tetal di ko wax mais xamul ba tey xamul lu gént gi tekk moom daal lim si xam daal mooy kanamu yaayam lay gént naaw suuf si naaw moom sax Paa moom dañ ko waroon bàyyi mu dem gis maman Banel bu ñu gis maman Banel rek lépp dina leer Paa Birahim bu demoon ba gis maman Banel rek moom tamit xolu wax wax ak mag mën na am sama gars yi def maa ngi di sant di leen gërëm di kontaan si série bi vraiment maa ngi koy suivre bon gis-gis man bi ma gis euh, diggante Madior ak Dior am na benn secret bu fa nekk secret boobu gaawee feeñ si li ma gis-gis. xaw ma nag de gars yi bëgg nañ ma wàkku secret boobu gaawee seeñ feeñ yaakaaruma maa joor takka joor quoi ndax lan euh, ku ma njëkkoon takk ak ku bugg takk ak ku muy xëccoo xëccoo xëccoontil seen yaay yi ñoo bokk ak baay donc euh, mun naam mu takk joor avant secret bi di feeñ waaw secret bi secret bi feeñ moom yaama ak ma ak joor seen ñaari yaay ñoom ñoo bokk ndey ak baay yaakaaruma mu mu seeyal ko quoi man foofu laa gisee affaire bi vraiment maa ngi koy suivre fii vraiment maa ngi koy suivre bu baax a baax affaire bu ma neex la quoi donc fi ma nee rek bi par rapport su ma ah, fi jàmm naka mu kóor ah man nag moom seetaan naa ma joor ak joor mais daal li ma gis mooy ah, yaakaar naa ne daal joor moom ma joor lay seeyal. moom laa gën a yaakaar ndax dañ ne ma joor ak joor loolu lañ wax Maysa daal laa gëm ni mooy ñàkk daal ndax waxoon na ko maa joor ne na ko dinaa la sëyal loolu dalaa gën a foog nag joor mi jaaxle na xamut fu muy taxaw lenn rek ngeen mën a dimbalee de tàntaam ji wane photo bi ñu xam ne kii mbokkam la loolu rek moo ko ci mën a génne waaye fi mu nekk nii ku ci nekk defal na ko loo xam ne mënulaa bàyyi te am na am na kersa ci génn ci yow kee fat na ko faj ko kee kii na ko jox ko won ko yaay ba mu wér kii def na ci moom lu nekk ah, affaire yi de doy na waar moom daal moom man de li ma yaakaar daal ne moo ko mën a dimbali daal mooy rek eh, yaay ci génne photo bi wan ko ko wala mu ne ko yow surtout Fatma Fat Ndiaye indo ko bu ko waxee doom ju ji rek joor dina jëli su ko defee mu xam ne kii am na luñ bokk waaye moom xam naa ne instant yi moom jaaxle na torop yërëm naa ko ci jaaxareem waaye nag yaama moom lim ko dal moom sedd na sax lim dañ ko waroon a bàyyi kaso gi ba mu sonn bu nekkoon ci kaso bi ba ba ba maajoon marié joor ba pare si la waroon a génn waaye dafa teel a génn naar moom nañ ko tëj ba damm ci caabi ja rek bu mu génn mukk kooku musiba la ci kër kër gum nekk dara du jàmm du fa am bëggee na ñàkk na jom bari na pexe waaw moom daal loolu laa doon am lu mat participer nag waaw maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant yëre ngeen jëf waay yal na seen taxawaay yàgg merci beaucoup. wasalaamaaleykum Lu Xew TV maa ngi leen di ziar bu wér di leen balu àq di leen baal àq leen naan déwéne ci yéen ñëpp nañu yàlla may ñu fekk déwén yu bari tatal ko ah di leen jaajëfal bu baax a baax a baax te xam ni seen télé ba moom macha allah bal fakalla yàlla jëm kanam a ah, ñi fi nekk ñi ko moom ak ki ko moom ak ñi liggéey ñëpp yàlla yokk ba ñu yokk seen kii bi yàlla na jëm kanam euh, li ngeen di def neex na trop wax dëgg yàlla waaye it maa joor dana yeete moom joor ak euh, seen théâtre bi daal macha allah dañ ciy jàng lu bare bare bare bare bare macha allah parce que diñ ci jàngee ni def lu baax dafa baax nga jàng ci def lu bon amul njëriñ nga jàng ci àdduna franchement parce que àdduna moom école la boo xam ne doo mës am doo mës chaque jour yaa ci examen di gën a jàng bon ngeen ubbi ñu nag seen bopp macha allah ñuy wax sunu xalaat kon dañ leen di jaajëfal man ne li ma neex ci maajoor dafa glan mais may sa dafa tàng xol tàngu xol nag lu la xañul du la ko may waaye teey lu la may rek du la ko xañ lu la mayu rek du la ko xañ allah teey dafa baax te maajoor fii moom def fi jiyee teey vraiment man gëm naa ni du ñàkk waaye yaayu may sa aussi tamit euh, njaboot la te wane ni ba yamale na doomam ak doomu kenn te xam deret day xeeñ ndax ni mu téye joor xam na ni deretam la macha allah euh, tamit dal na mu ngi jàngal doom ji àdduna te xam na àdduna macha allah donc li ñuy jàng ci théâtre bi bari na bëri na trop macha allah kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, macha allah daal yal na ngeen jëm kanam merci beaucoup suma juumee su ma waxul li ma warta wax rek loolu ci man la di dellu di leen balu àq bu baax jaajëf